بيت إلى إناس وحبيلا حب نبي الإله سورا سعد إلى المدينة المنورة محمد صلى الله مسلما بدت لنا علاه محمد فرد يفوق تسنياه wafaaxa jam an wal adaya jërëjëf sëriñ Mandak Gakou saay yooyu nga yëkkati ku gis jataay bii xam ni nag ñu ngi jëm ci taarixu dëkk bu tedd bii di Touba Fall Mbuxeex boo gisee sama càmmooñ sun kilifa gi toog di Alaaji Daawda Fall bu Mbuxeex feggoog ilimaani dëkk bi di sëriñ Modou Gueye Serigne Aliou mbay mi nga xamante ni ki nu Touba Fall mu xeex wax Serigne Aliou mbay di jàmbaari fëkk tëdd yàlla na yàlla guddal fanam feegoog seen doom ji di sëtub sëriñ Touba Serigne Bassirou Mbacké moom sëriñ Modou Makhtar moom Serigne Cheikh aw bal moom maam Thierno waaye di doom ci soxna Kumba Fall moom alaaji Ndaama Fall ku ne alaaji Ndaama Fall wax Touba Fall mu xeex ak Serigne Abdou Akim Fall moom Serigne Bassirou Fall alxuraan moom it di kenn ci dëkk bi yor fi daaree alxuraan Baye Ndongo nekk nii taxaw dina ñëw moom tamit ci taarix dëkk bi waaye jëwriñ sëriñ Cheikh Mbacke Diop Serigne Cheikh Awa Balla Gueye taxaw nii ak ñi nga xamante ni si ñoom lañ feggonteel waa dëkk bi yëpp fas yéene waxtaane dëkk bi Baye Modou Gueye imaamu dëkk bi ni ma ko wax woon ci njëlbeen bi may tàmbali moom it mi ngi nii kon nag li ñuy def rek mooy jox suñu waajur suñu baay alaaji Daado Fall bu mu xeex mu ubbi kàddu gi alhamdulilah rabbil alamin mi ngi sant yàlla di julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mbokk mbokk yi li am yombul dëkk bii alquran a ko sos comme ni sëñ Bay waxe ni la ame maam Ousseynou bi mu jógee Touba fii lañ ko daral biñ ko fi daataa dalal sama maam ñëw na fi wàcceel ko fi ñeenti kaamil ak waa tund wi kon lii lu fi sax la li ma leen di dolli nag yéen xale yi mag moom ku dem mu dem ku demul mu dem waaye li ngeen jàpp bu leen ko bàyyi ndax kat ci lu wér ngeen jàpp fu dëgër ngeen jàpp yàlla ba ci seytaane am wàll lépp lu ngeen man bu déwénee yàlla na ngeen man lu ko ëpp ñu ngi koy ñaan ci barke yonent bi barke guddi gi barke Serigne Touba barke Seydi Hadji Malick barke Nabel Moustapha mi tax guddi gi déggula koom ñu di ci sonn lu fu waay yëngu yàlla na ko yàlla barkeel ku fi ñëw yàlla na yàlla faj sa aajo sa tànki dem ak yu dig yàlla na ko yàlla def tànki faj aajo tànk fari bàkkaar ci barke yonent bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërëjëf Serigne Daouda Fall Mbuxeex kàddu yi gàtt na am na solo dégg naa Serigne Bàcc jot di ko léegi ci addis yonent bi sallallahu alayhi muy xayrul kalaami ma xaala wa dalla kon nag ki ñuy jox kàddu gi mooy ki nga xamante ni si mën na ni mooy werekaanu Touba Fall Mbuxeex di sunu bàyyi Aliou Mbaye yàlla na yàlla guddal fanam moom la ñuy jox kàddu gi. alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah bokki jullit yi bokki dëkkandoo yi ñoo ngi leen jot lim nuyoo ak siyaar kaddu gi daal ci sunu kaw sañu ko moytandiku ndax wolof dane ko des dese bu ndeego net noo ngi bëgg a bokk ci mag dëkk bi am loon ci dund am luñ nangoo ci sunuy wayjur am loon nangoo ci mag ñi nga xam ne ñoo ànd nag sëriñ bi taarix boo cay wax tam mag la te bindeesu ko foog ngay xool bu baax fi ngay teg sa tànk dëkk bi taarix bi lima ci xam ci gàttal sëriñ bi bi mu fiy jógee dem ba xeex la jóge dem ndànd di wuti kayit gu mottalee kaabilu alxuraan dëpp seen mag ñi daw di jëm grand nda grand ndànd fa maam Cheikh Rafaal nekkoon Daaru Faal Daaru Jóob mu ne lu xew ñu ne Cheikh Rafaal fi ne bi mu ñëwee gis ko nuyoo. mu ne ko faali fan mu ne ko sawu jant mboxeex mun ko loroon say tànk mun ko dama ñëwoon doon jënd kaam kayit bi ma mottale sama kaamil bi ñun ma yaa ngi fi mën naa ñëw siyaar la mun ah Fall si kaamil baax na de waaye boo seetoon saa waajam gën fee baax de mun ko kuy sa waay mun ko Cheikh na Cheikh Amadou Bamba mu ne fu mu ne mu ne ma nga ciyeen ca Jolof mu ñaanal ko mu génn fekk mi ngi feggoo ak góor gu ñuy wax maam Alassane Diop mooy turandoo Alassane Diop mii moom soxna Soda Sall ñu naa ko yaa jaara ndaa ma dafa fonkan kóllëre jéem koo jëmbat moom ndax mën nga koo bind mu xottiku ko baa mu lakk mën nga koo wax ko fekkewul du ko xam waaye am ay doom sulli mag ñi wëran sëriñ bi ne fi ku ne mu tuddale kenn mooy turandoo alsaan wow nga xëy moom moo doon bras droit maam Ousseynou jamono yi mu dem ci sëriñ bi li ci xam daal jolof la ko fekk njaarim la ko yëwee kon diggante set ji mu ñëw jolof ak duus ji mu ñëw njaareem xam naa ca mujj mujjug ñëw ga njaareem ca la ca la ko fekk jolof mu ànd ak ñëw njaareem bi mu ñëwee njaareem it fi la nekk moom xëy yebal ko ni ko dama seeti sa waytu bi mu ñëwee gis la xew mu fekkee koo tam bi dogal bi yeggee bi mu yeggee bi mu ko nee bëgg nit la xew sëriñ bi nee na ko wasay nu mën na ko mbàkkee mën ko dara jëru wax ndax dama doon bañ loola wut sa ginnaaw xam nga ko gaa daay ni sëriñ ba jekk-jekk nga ni jala ñëw sa wayjur ñaari mi ñett dogal ba ñëw kooku kala yebal du ko ndaw bi mu ñëwaat bi ñu ko baatalee ginnaaw ñëw njaareem bi mu ñëwee ci sëriñ bi bëgg a wax ak moom sëriñ bi da kon dara jëru maa wax dama doon bañ lu la wut sa ginnaaw diir bu gàtt nag mu daal di koy yiwi ni ko fa ñuy wax mboxeex boo yeggee da ngay wut faneen nga sanc fa dëkk fa yow tuddee ko sama dëkk bu sell be di Touba santale ko saw sant Massamba dina leen sëb cër Massamba dina leen sëb cër Massamba moomu kuy wax ci Touba Fall di wax ci Maam Ousseynou te tuddoo Massamba am na lu ump ci taarix bi kuy wax ci ak ku la mën a meññ ci kër sëñ Massamba booy waxtu su daale woo Touba Fall am na ñu la gën a miin sëñ Massamba baa ñu gën laa miin jàtteem kenn daal li mu fi njëkk a yend bi mu yendoo mag ñi ne ci tisbaar bi mu nee gees ni sëñ Ousseynou fa jàkka ci toll te fekk amul daa raay dox gi xam nga bu ñu lay laaj lu amul mu raay dox kenn ko mun ko Ousseynou mu ne Mbàkke mun ko jullit fu mu dëkk dem jàkk keroog mag ñi nee na bi takkusaan daa daan jot ku ne indi na say xat ñi indi eh, mbisaaw ñu xooj ko rabb ko ba mu nekk ñeenti laaj akum mbañ gàcc ñu nodd ci jàkk ñu julli tàkkusaan lañ ci jëkk a julli mun ko ba mu dakkati loolu taarix la du nit mën a dindi man nga bañ a gëm waaye neexul dindi neexul dindi dégg nga ci loolu nag sëñ Ousseynou ne fi ban yàlla dogal lim dogal doom yi jiitle yeeg doom yi boppam yi ne fi yàlla di dogal li muy dogal ba mu ëgsi ci loxoy sëtam bu ñuy wax alaaji ndaama nga xay ni maamam ji jur baayam ak sëñ Ousseynou ñoo bokk ndey baay gone daa dem daara mag des ci kër gi wattu mag ñi lii rek mooy différence maam Ablaye ak maam Ousseynou ñoo bokk ndey baay am ñaari jigéen bii tudd Anta ma Ngoone Fall dem Daaru Sëy jur fa ñu sant Sëy bii tudd Aram Paate dem kër Asa Mbengeen jur ñu sant Mbeng ñu door a bokk ak lañ bokk ak ñoom bëgguma cee sori mu mel ni dama bëgg jël wàllu Mor Ngunj ba wàllu keneen waaye ma faal anta ma ngoone alsaan anta ma ngoone ñoo bokk day ak baay ñii meññi ñii ñi meññi ñee ci gàttal daal comme jitaay bi dafa xat foofu laay tënk alaaji ndaama nag bi mu dem bi mu ñëwee li yàlla dogale ci loxoom ñëpp da koy nangu ndax kat fekk na fi Touba Fall fekk ma ñi tëdd fi waaye 84 ci décembre bi mu laxasaayoo jubal ci fas yéene dekk li dëkk bi kemtalaay kartanam lu dëkk bi euh, maanaam bu doon garab mën naa lu mu gëmm-gëmm ba nga deen day bëgg fay ne taalub yàlla du fay bi mu ci dugalee loxoom ci 84 ak fii ñu taxaw tey ku ko gis di nga xam ni li ma wax du lu ñuy àpp pare lim màgg mënees koo wax li fi taxaw ma mënees ko wax xanaa dañuy def jitaay bu ñu am rek ñu am luñ ca wax moom li ma waxan ci moom rek altine la ñu tàggu ci yoor yoor juróom-ñetti fan ci weeru tabaski altine la fi de si fukki fan ak juróom-ñett ci diggu màggal nu denc ko fii ci tàkkusaan moom altine la fi tàggoo jëm ndakaaru tabaski ji altine la dellu siwaat ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru diggi màggal dañ koo denc bët si di màggalu Daaru Xudoos yàlla na yàlla tombale ko bisu borom Tuubaa boobu nga xam ni sëñ Modou Moustapha danoon ko fi fanaan sunu borom xar naa berndeel ba deela teral ci teraanga yi gën a kawe yalla na ko yàlla def lu ci dëng ñu baal ma ko te xam ni yéene rek laa am waaye man li may wax de lu wér la moom lu wér la. ndax mag ñi daa am ñoo xam ne dañoo fekk sëriñ bi dund ak moom lu bari lu bari bis bu ko jitaay bi laajee rek dañ ko leeral benn par benn ndax moom du luñ ñu mën a wax ci benn bis du lu ñu mën a ci ñaari fan du ñu wax ci ñetti fan ngeen baal ma àq. jërëjëf Baye Aliou Mbaye kaddu gi macha allah rafet na matale na di nuyuwaat Serigne Mathiam bokk na ci mag ñi nga xam ne ñoo ngi ci ginnaaw kon dañuy jox kaddu gi rek ki nga xamante ni si mooy ilimaan yi dëkk bi di Serigne moo du toor fa kàlla macha mi ci xam bi ak yar bi ak pastef bi yàlla yàlla guddal fanam. alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi amin sayidina walana muhammadin wa alihi wa sahbi wa mu mel ni wax jëpp matale ndax ñi wax ñooy sunuy mag ñooy sunuy mag di sunuy kilifa hmm. te noonu daf am lu nga ne ci ñoom rek lañu koy royee am naa mën nañoo jox kàddu gi keneen koo gën a mën a jotal incha allah yàlla na ko sunu borom nangu te jubal ko amin kon nag ki ñuy jox kàddu gi mooy jëwriñ Serigne Bàtti Diop di kenn ci digg eh, dëkk bi waaye di kenn tamit ci liggéey bi kon Serigne Bàtti Diop kàddu gaay noonu kalimatan tayyibatan ka sajjaratin tayyibatin asluha sabit wa faruha fi sama tuuti ukluha kulla hiin bi isni rabbi mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara ci place bu tedd bu barkeel bi di bég lool ci mbokk yi nga xam ne ñoo nu jiitu ci kaddu kaddu yu sell yu tedd yi nga xam ni yëkkati nañ ko fi tabaarakallahu bisu yonent bi alayhi salaatu wasalaam la ñu wax tey kon suñu fi dee waxtaanee mag ñi lu baax gënul yonent bi ginnaaw lu baax génnul yonent bi ndax képp ku baax dañ lay boole ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax ci nga bokk Touba bu ñu ko waxee alxuraan la alxuraan la sëriñ bi doon bind baykéetam manki ni ko sama nijaay waxee mu yóbbu ko ca taax ya mu doon ko jëndi ba am fa tegtal bu jëm ci ku tedd ki muy Cheikhul Khadim ginnaaw noonu la demee ñu jóge ci jumaa ji léegi doon jàng alxuraan kon la sëriñ la alquran waxoon ni qiraatuhu kansi wa jaahi wa hisati uniltu biha kaw nii la daa laahi saa sidqi kon am nañ ko tey dëkk bi barkeel gu ñu am ci alquran lañ ko amee ndax sëriñ tubaa nee na jàng alquran day indi texe day indi bénéfice bu bëree bari kon nag loolu loolu la euh, maam Ousseynou amee ci alxuraan muy dëkk bu tedd bi tey euh, dañuy wax nag ni nit lu mu baax baax ak lu mu sos lu mu rëy rëy su amul ñu ko mën a topp gannaawam amaana la mu jëfe woon mën naa sànku ndax jàng nañ ci alxuraan ni fa xalafa min baadihim xulfun addoo salaata wa tabao sahawaat am na ñoo xam ni ba ñu doonnee seen ginnaaw maam ya fa la ñu daal di neenal julli fa la ñu neenal lépp loo xam ne aju na ci lu baax ba la ñu yoran la mu doon baax baax dafa mujj sànku yaakaar naa ni Touba Fall nag tey ku taxaw ci dëkk bi xool na Touba Fall meloon 1986 1987 nga ñëw ba 2003 tey nga xool ni Touba mel di nga xam ni tey ñi doon mag ñi ñooñu tey mujjewuñu pousse bu mu réer kon su ñu amee loolu ci ndam ci Touba am ko ci ñoom ci dëkkandoo gu rafet ndax Touba Fall ay murit fi dëkk mboxeex gii ñu dëkkal ay tijaan a fi dëkk waaye relation bu rafet bi nga xam ne amoon na ci diggante Cheikh Ousseynou ak maam Balla nga xam ni fu maam Serigne Touba radiyallahu taala wu taxa waxee ni muhammadun misaalahu lam yaati fii ma madaahu abadan laa yaati maam alaaji malik day taxaw fa wet ko maa fil barriyati man lam taskuhu karaman min wurihi rabbana yallaahu yallaahu xëccanti googu ñaari mag yi doon sànneenti bayit ya nag moo tabbi ci diggante Cheikh Ousseynou ak Maam Balla ba loolu moo tax tey jii Serigne Daouda Fall nekk nii boo ko waxee mu ni la naasir al xaq bil xaq wal haadi ila siratika al mustaqim nga taxaw xool jumaa yii ci saw ñu ne la Mahmadan Fall moo ko fi def ngir lan taral naasiril xaq bil xaq nga xool jumaa jii ci penko ñu ne la Serigne Ousseynou Fall la tiim jee tiim Maam Balla jiiteem Serigne Ousseynou bu ñu taxawee fii naa la as bi sutuur yi aslil xumuur yi kasil xulu yi bilaa ki kon daal xel dal na kon daal fa xalafa min ba'di xulfuun dalul Ndaama Fall dëlul waa Touba Fall dëlul waa xeex Fall ndax ñi fi nekk nit jom lañu nit fulla lañu nit fayda lañu te dañ nit su ngor ak jom jóge ci moom dara desatu fa maa ngi sant ñëpp di siyaara ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah xanaa rek di beral kàddu cant ak ngërëm ak ak ak tedd nga di ko ñaanal fan gudd wu ànd ko wér wu àndul ak lenn lu dul mucc ak muccile muy Cheikh Bassirou Mbacké Cheikh Bachir yal na yàlla guddal sa fan gis nga alxuraan dafa wax ni nit ki nga xam ne day jokkale ak bokk ci ñi alxu yàlla gën a bëgg ci la bokk sëriñ Basiiru xeebul kenn sëñ Basiiru yéemul kenn sëñ Basiiru dawul kenn waaye sëriñ Basiiru diwul kenn dawul di dabu kenn de waaye dawul di daw kenn waxuma la dara ngir jël man damay wax ni jomb na maa jëy doomu aadama ndax day naag waaye nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam bii ñu nettali jikkoom tey da koo jëfan yàlla noonu na ko wala kunta fassal xalisal xalb lan fadu min awlik ndéem yàlla moo wax loolu yonent bi keneen du mat a wax noonu na yonent bi soo meloon ni gay soo gistoo doo gis kenn waaye yow mi itam soo diisan niw xeer kenn du topp sa ginnaaw yal na yàlla guddal sa fan na yàlla wéral la yal na yàlla sàmm la yal na yàlla teral la bi jaaxi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp kaddu gee gàtt rek waa ko dama macha allah Serigne Bathie Diop kaddu gi matale na macha allah rafet na fi nga ko tëjee di jëwriñ Serigne Bassirou mbake nga xam ni noonu nga ko waxee ci moom rek ci yar bi ci woyof gi ci mbaax gi ci bëgg lu baax gi nga xamante ni si bëtam yëpp da koo jël teg ko fii ci dëkk bi di Touba Fall wax na ko bis ci ndaje mi amoon ci géej waaye ci kër Alaaji Ndaama ni man Mbàkke laa sant su ma guddee fan daaru marnaan ak daaru musti laa mën a moom waaye Touba dama ko def sama biir xool am yéene ak yëg-yëg ci biir Touba Fall waaye àdduna du gudd tànk ba may doon borom Touba lool nag mooy bëgg ndax dañuy wax ni xaste balaa ñaaw ñu tudd kër ndey te ndeyam fii rek la dëkk alaaj ndaaw am lépp lu mu mos am fii la ko indi kon nag ki ñuy jox kàddu gi mooy jëwriñ Serigne Mbacke Diop rahmatullah sokki taalibe yi ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di wax alhamdulilahi rabbil alamin suñ borom dogalee ñu fekkee bis bu tedd bi fas yéene màggal guddi gi li nga xam si ni noonu la ko sëñ bi doon digle te ko daan di jëfe mm. muy taxsimo bi sunnati yàquduna bi di taxsimo bi sunnati yàquduna bi jannati mm-hmm. incha allahu rabbi noonu rek lañ ko fas yéene màggale mm-hmm. Cheikh ko Diop doon daay jëwriñ daayira nuuru daayira ni bu Touba Fall ñu taxaw taxawal benn association boo xam si ni sëñ Basirou Mbacke mooy jëwriñ ji ñu tuddee ko association daayira Touba Fall sëñ Basirou Mbacke ci baaxam bëgg yaatal mu daal di lëkkale ñaari daayira yi nga xam si ni lépp loo xam si ni jëm na ci organisation ci gàmmu gi ci sun loxo la nekk ñoo yor lépp lu jëm ci organisation gàmmu gi yàlla dogal la nag ci suba wàcce nañ kaamin bi ba pare lépp jaar na yoon incha allahu rabbi fi ak 17h ñuy waajal incha allahu rabbi cérémonie officielle bi. buñ ci jógee incha allahu rabbi ñëw ci baas bi minuit pour màggal guddi gi lépp loo xam si ni nag jëm na ci taxawaay bi sëñ Basiru Mbàkke mi mooy jëwrin ji moo nekk ci kanam. ñun nag dañ koy sant di ko gërëm fii sëñ Bàcci Jóob daanale ndax wax dëgg yàlla dafa bëgg dëkk bi saa su nekk nag mu ni soññ gis nga organisation bi moom mooy nekk ci kanam mhm. waaw xëy na Mbàkke la sant wa mën naa toog fee waaye nag gis nga liggéey bi kenn mënu ko ci saa su nekk mu ni soññi pour loo xam si nii moo jëmale dëkk bi ci kanam kon loolu nag dañ ko ci sant di ñaanal yàlla guddal fanam yàlla defal ko jàmm ak tawféex ñoo ngi sant nag waa daayira bi ñëpp di mhm. sant waa Touba Fall ñëpp mhm. gis nañ seen taxawaay mhm. ndax bis bi wax dëgg yàlla ñoom ñëpp ñoo ngi ci lépp loo xam si ni ñoom moo koy jagal rek loolu ñoo ngi ci kon ñoo ngi sant yàlla di gërëm yàlla yàlla nañ ko fekkee waat déwén bii mooy trentième édition kon dañu ñaanal yàlla trente trentième édition bi mu fekk nu fi ñun ñëpp incha allahu rabbi jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah jëwriñ Serigne Mbacke Diop di jëwriñ nooru daari ni Touba Fall fi mu bàyyee kàddoom la indi ak cant ak ngërëm rek di ko jagleel waa Touba Fall Mbuxeex gépp ndax kenn demuñu des rawat na nag waa nooru daari ni ak ndaw yi nekk dëkk bi ak mag ñi ak góor ñi ak jigéen ñi ndax tey képp ku ñëw ci dëkk bi xam ne am na saytu am nag taxaw ndax lu ëpp ñaari ayubis ñu ngi ci wàllu set setal ak defaraat penturaat li nga xamante mooy dëkk bi penturaat barab yi ba fépp foo xam ne gan ñëw na fa tey ci dëkk bi di nga gis geneen xar-xaram ci Touba Fall mu xeex loolu nag seen Pastef ak seenu taxaw ak bëgg dëkk bi te xam ne ndimbal la ca fekk sa loxo lépp lu waay def Touba Fall ñoom la ko defal loolu moo tax dañuy jox nag kàddu gi ki nga xamante ne si mooy fii maam Cheikh Ibrahima Fall mu ubbil ki nga xamante ne si mooy Serigne Touba ndax Serigne Abdou Akim a ngi nii di sa tub maam ci liggéey bi moo ngi nii kon dañuy jox sëñ Abdou Akim Fall moom it mu ubbil sëriñ Bassirou Mbacke kàddu gi ahousu billahi mina seytaani rahmaani rahim wasalaatu wasalaam ala asrafil sadri wa yasir li amli waxul qudatan min lisaani yafahu xawli saddi lisaani nawir janaani safil amaani wasit baraay barke borom Tuubaa barke maam Cheikh Ibrahima Fall asalaamaaleykum wa rahmatullahi taxala wa Euh, mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ne sa tur ak sa sant euh, di jiital ci nuyoo bi euh, suñu kilifa gu baax gi di sëriñ Mouhamadul Bassirou Mbacké mun sëriñ Modou Makhtar ñu ngi koy siyaare bu baax di ñaan yàlla suñ kàddu fekk ko ci jàmb ak mboolem waa dëkk bi ak mboolem tund bi yëpp nag. mu mel ni sëriñ Xaadim noonu nga ko waxee noonu rek la ndax dëkk bi moom day dëkk boo xamante ni bii dëkkub sëriñ Touba la waaye dëkkub lislaam la. dëkk mboolem jullit ñi la ndax bi ñu fi ñëwee ñun mën naa ne ñi fi mujjee ñëw ñu ci lan bokk waaye bi ñu fi ñëwee te itam nag fekk ñu fi dara te itam lu dul eh, yoonu lislaam li lislaam santaane li Serigne Touba bëgg maam Cheikh Ibrahima Fall bëgg ko mboolem mag ñi bëgg ko ci loolu rek lañ fi fekk mbokki taalibe yi mbokki jullit yëpp. mu mel ni ñun suñ taxawaay te itam taxawaay la boo xam ni dañoo bokk ci dëkk bi taxaw fi taxawaayu doom taxaw fi taxawaay taxaw fi taxawaayu jarbaat. comme ni fi ko ni ko Serigne Bassirou Mbacke taxawee ñun noonu lañ taxawe ci dëkk bi ndax suñuy maam ñoo dëkk ci dëkk bi suñu waajur bàyyee fi te itam euh, mu mel ni ñun ñu bokk ci njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall waaye ñu bokk ci ñaari fan fànn yëpp nag euh, muy ci njabootu Serigne Touba gi ak ci njabootu maam Alaaji Maal gi ci leen bokk ci ñaari fànn yëpp ci leen bokk mu mel ni suñ maam mi ngi nii toog maam Dawda Fall euh, di suñu maam lenq te itam nag ku ñu jege lool di mbokkum deret moo xam ne jege nañu lool ku ñu bëgg te itam nag maanaam bëgg suñu bëgg suñu bëgg bëgg suñu jëmm bëgg te itam sopp ñu te sopp ñu lool nag mu mel ni sëñ Xaadim noonu nga ko waxee noonu rek la dëkk bi bi ñu fi ñëwee dañ fay fekk ay bokki taalibe ñun itam ñu ñëw jàppale leen ca loola mu mel ni bi fiy ñëw dañ fay fekk suñu maam maam Alhaaji Ndaama Fall moom lañ fi fekk mu daggal ma fee pàkk terrain daggal ma ñeenti terrain ñeenti pàkk yoo xam ni dama ko joxoon ngir jëm sëñ Tuubaa rek a tax gannaaw bi ñu demaatee ba ci yàgg nag mu ñëwaat fi te itam nag dolliwaat ma juróom benn terrain ni ma juróom benn yi dama la ko jox ngir jëm addi Cheikh Ibrahima Fall noonu la ma ko waxee ni ma dolli ko ci ñeent yi ma la joxoon muy juróom-ñetti pàkk mu mel ni kon mu nekk jëmm joo xam ni ñun duñ ko fàtte mukk nag bi yàlla dogalee ñu ñëw te itam ñu taxawal dëkk bi kër gi euh, taxawal ko taxaw taxawaay bu rafet ànd ko bokki taalibe yi nga xam ne ñoom lañ fekk ci dëkk bi ñu ànd ak ñu ànd ak man jiital ma tey itam def ma jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall waaye bi ma ñëwee te dama leen fekk ci liggéeyu Serigne Touba bi fekk leen ci liggéeyu maam Cheikh mu mel ni man damay ñëw rek ànd ak ñoom ci loola ndax fekkoon na Serigne Mouhamadul Bassirou Mbacke jiite leen ci loolu te itam kon man day day mel ni taxawaay ba Cheikh Ibra Fall taxaw woon ci digganteem ak Serigne Touba taxawaay boobu rek laay taxaw ci digganteem ak Serigne Mouhamadul Bassirou Mbacke kon taxawaay boobu tey itam foofu foofu lañ fas yéenee taxaw nekk ab taalibeem nekk tey itam ab soppeem tey itam fas yéenee topp ci ginnaawam lu mu digg la ñu def lu mu tere ñu bàyyi bi ñu ñëwee tey itam nag li Serigne bi bëgg rek ci loolu lañ ko nekkal muy jàngal ndaw ñi alxuraan jàngal leen xasiday Serigne Touba yi jàngal leen itam xam-xam leen li nga xam ne mooy mbindum Serigne Touba bi ñu ñëwee itam ñu fekk fi ku baax koo xamante ni bii dafa nekkoon ci loola muy muy muy Baye Modou Guèye mii nga xam ni ci loolu rek la teet la la la la nekkoon ak gone yi di leen teete ci loolu te itam nag bi ñu ñëwee te itam ñu ànd ak moom ca liggéey boobu noonu mu nekk koo xamante ni bii ba fii may waxee yow nii Serigne Mouhamadou Bassirou Baye Modou mi fi ne moo yoro daara ji di jàngal gone yi alxuraanul karim waxtu wu ne fa lay xëy waxtu wu ne fa lay gont te itam bàyyi na yitteem yëpp ngir jëmi Serigne Touba Cheikh Rafa rek tax maanaam fas yéene nekk ca gone yi ci gone yi di leen jàngal alxuraanul karim kon nag loola ñu ngi ko ciy sant bu baax nag te di ko ci gërëm bu baax te di soññ gone yi soññ ndaw ñi nga xam ne ñoom ñoom laa sañ a soññ ñu fas yéene góorgóorlu topp ci sëriñ Mouhamadul Basiir Mbacke ñu fas yéene taxawal dëkk bi defar ko te itam ni ko suñu maam bëggee woon ñu fas yéene nekk ca loola lëggéeyal sëriñ Touba liggéeyal mag ñu baax ñi lépp loo xam ne luy defar dëkk bi la ci kanam ñu fas yéene nekk ci loola sax ci ak taalibe sax ci ak njub te itam nag di gërëm nag ñi nga xam ne ñoom la fi maam daama bàyyi muy alhaaji dan ñu ngi koy sant bu baax di sant sëriñ Modou Fall di sant soxna mi sëriñ soxna Daba ñu ngi koy sant bu baax te itam nag di sant soxna ami ñi ngi sant ñëpp ndax wax dëgg yàlla man dëkk bi aw fi kenn koo xamante ni bii maanaam xarma yàlla la ndax gone yi sëñ sëñ Basiru nga ma bàyyi la maanaam gone yan ay nit lañ ñoo xamante ni bii ñu baax lañ ñu bëgg lu baax lañ te itam nag ñoo xam ni maanaam lépp loo xam ne dëkk bi ñu ngi koy woote su ma ci yëkkatee sama kàddu lépp loo xam ne jàppoon nañ ko ñoom dañ koy bàyyi ñëw ngir jëmmi Sëñ Tuubaa rek tax te loolu nag ci yaa ko def ci man ndax yow yaa ñëw bëggal ma sa bopp jàppal ma sa bopp ngir jëmmi Sëñ Tuubaa te loolu rek te loolu nag ci leen fas yéenee sax nag ci leen fas ne nekk te itam nag kon ñi ngi ñaan yàlla euh, bis bi nga xamante ne bii mooy gàmm gi comme ni ko Serigne Cheikh Diop waxee tax si moxo bi sunnati yaquduna lil jannati bi his diyaajul minat lil muxlisin maasami ñoo ngi ñaan ci barkeb Serigne Touba yàlla nañu Sëñ Tuubaa boole ci loola ndax alxuraan day wax ni xayrakum man taxalama xuraan waxal la ma xool naas ki gën ci yéen mooy ki jàng alxuraan ba noppi ko jàngale. kon nag ñun li ñu war te itam nag mooy sax ci ndigalu Serigne Touba yi sax ci ndigalul maam Cheikh Ibrahima Fall dëgg la naam ay Baye Fall lañ sax nag waaye teewul te itam nag nekk Baye Fall du tax du tee nga bëgg lu baax te tam nag. ndax buñ lay tudd di tudd Serigne Bassirou Fall alxuraan Serigne Bassirou Fall alxuraan Serigne Mbacke Fall mooy waajuram Serigne Mbacke Fall maam Cheikh Fall kon nag loolu rek moo war moo waral suñu waajur dafa suubu woon ci alxuraan bëggoon alxuraan te di ko dundee te ci loolu rek lañ fas yéenee sax te itam nag fas yéenee sax ci ak taalibe gu sax ba kon sëriñ bi ñu lay sant bu baax nag ñu ngi lay sant ci mboolam koo xam ne aju na ci man jaaral ko ci sama kàddu ñu ngi lay sant bu baax suñu borom yàggal la fi te guddal saw fan te wéral say cër te sàmm la ca aar la. kon nag dañuy jëm rek ci jëwriñ ci di kenn ci dëkk bi comme ni ko ñëpp waxee dañuy wax ni doomi doomi ñey kenn du ko ñaanal rëy dañ koy ñaanal gudd fan sëriñ Basiru lu ne mën na koo am ndax dañuy wax ni nit dinañ ko boole ab juddoom toroxal boole kook wërsëgam toroxal boole kook dooleem toroxal waaye kenn du boole nit akub yaram toroxal te nag jikko dina defar judd waaye juddu du defar jikko kon nag tuwaar fa kala macha allah bi ko sama boroom joxe judd bu ko mate waaye wëlbati ko jox ko jukko ak yar boo xamante ne si war naa mën a tax mu doon kilifa ku ne kon ñu bokk déglu jëwriñ sëriñ Basiru Mbàkke sëriñ Moodu Maxtaar asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi nuyu mbokki jullit ñi ak mbokk taalibe yi fi daje yëpp di jiital ci nuyoo bi suñu kilifa yuy toog Baye Daouda sëñ Modou ak sëñ Bàcc Diop di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di nuyu Serigne Abdoul Hakim Fall moom sëñ Bassirou Fall alxuraan di nit ku baax di ko ziar di ko jox wàccuwaayam di nuyu sëriñ Serigne mbay Mbaye Malaaji Jaaja maa ngi koy ziar bu baax di nuyu Serigne Cheikh Mbacke jëwrin Nuuru Daarini Touba Fall mu xeex ak ñi mu àndal ñëpp yëlif di nuyu Serigne Abdou Lahad Fall moom Baye di kontaan lool ci liggéey bi nga xamante ni si waa tubaafal Fall ñëpp ànd nañ ko ak ñun te ñun it ñu nekk ci biir man may jëwriñu association daayira Touba Fall xeex taxaw ak sëriñ Cheikh Mbacke jëwriñ Nuuru Daarayni ak suñu kilifa yi toog di eh, di nuyu ilimaan ji sëriñ Modou di ko ziyaar bu baax di wax ni tey moom kàddu yi ñu yëkkati kàddu yi cant rek la ndax lii bañ ko taxawalee ba léegi eh, mën naa wax ni mi ngi toll ci juróomi at ren ñu ci nekk ba ba léegi di soññe Euh, di àndandoo ak ñoom liggéey bi bu demee kon ba toll fii sant yàlla rek la def tey moom kàddu yi du doon kàddu yi soññe kàddu yi sant lay doon ndax lépp luñ doon ñaan yàlla suñ boroom dimbali nañu si bu baax ba niñ ko bëggee woon ñoo ngi koy am bu baax tey jii nii képp ku gis dëkk bi ni mu mel xam ni waa Touba di nuuru daaree ni Touba di waa association Touba ak Touba Fall ca kanam ñëpp boobu ba léegi bàyyiwuñ nekk ci liggéey bi seet seetal dëkk bi defar ko ba dëkk bi yëpp moxtaare lépp rafet ñu ànd kook sëriñ Abdakim fal ak sëriñ Bàcc Diop mii euh, kon loolu buñ demee ba gis lu mel noonu loolu day dalal suñu xel ndax ñun loolu rek lañ mës a bëgg ci loolu rek lañ leen di mës a soññ di leen wax ni dëkk bi seen dëkk la dëkk bi ñi nga xamante ne si ñoo nekk ci dëkk bi di fi fanaan di fi yeewoo féete fi fii seen dëkk la ñun ñi bokk nañ ci dëkk bi waaye xëy na suñ borom euh, dogalul ñun ñu féete ci dëkk bi nekk fi ñun ñi ñëpp ñoo ngi ndakaaru waaye liñ leen di wax rek tey bu ñu demee ba taxawal association daayira Touba Fall wala daayiratu Kanzul Moxtadin wala nuuru daayira Touba lépp Touba Fall rek a tax lu ñu am Touba Fall la ñuy indi Touba Fall rek lañ bëgg li nga xamante ne si moom la Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul bëgg ci dëkkam lépp daje fi sëñ Modou Gueye mii seede la man mii nekk naa ci dëkk bi juróom benn weer ñoom ñi ñëpp ay seede lañ ñoom laa fi nekk ndooloon nekk fi di jàng xam-xam abidin moo fi ne woon yore daare alxuraan ji léeg-léeg daare alxuraan da daan soxe bu baax ba boo mësaana toog comme dëkk boo xamante ni si dañ naan dëkku sëñ Touba la boo toogee doo fi dégg xasri yi di jug wala sikkar wala yu mel noonu yëpp ñu ko daan ñaan yàlla ak sëñ Modou Gueye mii yàgg nañ ci waxtaan ak sëñ Aliou mbay ak ñëpp tey kon bu ñu demee ba gis sëtu maam Cheikh Ibrahima Fall ñëw sanc ci dëkk bi féete fi yore daare alxuraan ji euh, ñu dem ba naan nit de jàngee na alxuraan Touba Fall ba mokkal loolu sant yàlla la loolu sant yàlla gu la moom sëñ Abdou Hakim yor na donga boo xam ne jàngal na ko ba mokkal alxuraan kooku mi ngi tudd Cheikh Awa Balla loolu sant yàlla la mm-hmm. kon bu ñu gisee tamit euh, waa daayira bi sëñ euh, Cheikh Mbacke mi ak ñi nga xamante ne si ak ñoom sëñ mbakkeek ñoom sëñ Ibrahima ak seexawu Awa ñii ñi ñëpp nekk ci liggéey bi ak amaat jàpp ci ñoom ñëpp di euh, gën a gëm yëfi bokk ci programme bi bokk ci ñi nga xamante ne si ñoo yore lépp lu jëm ci gàmb gi loolu sant yàlla la yàgg naa leen ko wax ne nit nag bu fekkee da ngaa am dara loo xam ne yaa ko moom danga koy jëli waaye doo xaar bay toog ñu jox la ko léegi la leen di moodu Mbacke di sant tonton Modou Fall léegi la leen di sant ndax ku ne xam ne dañoo am problème mu courant ci dëkk bi saa yoo toogee courant bi coupé waa Nourou Daareen ak waa Touba Fall ñi fi nekk ñoo dem jël groupe indi ko barkeeloo ko ci gàmmo gi teg ko ci baas bi loolu sant yàlla la loolu buñ toogoon di xoolee duñ ko mën loolu yëpp sant yàlla la kon nag tey jii mënuñ def dara dara dara dara dul sant leen di leen wax ni tamit nañ xam ni tàmbaleeguñu liggéey tàmbaleeguñu nañ jàpp ni dëkk bi ni Touba Mbacke mel wara Daarul Moxti mel ko wala yenn dëkk mel ko dañoo bëgg dëkk bi dem ba mel noonu kon nañ gën a góorlu gën a jàpp ci liggéey bi xam ni yëf yi ñun ñii ñoo ko bokk comme li may wax rek saa su ne maam Ndaama mi tëdd fii exemple la parce que maam Ndaama tey bu doon dund mën nga wax ne du doon xalifa dëkk bi ndax dëkk bi maam Ousseynou moo ko sanc kon doomu maam Ousseynou tey moo waroon doon xalifa gi waaye tey jii nii foo tuddee maam Ousseynou Fall maam daama nga ciy teg loolu li ko may nag mooy passeef ak ku nekk su ñun ñi muy sëñ bàcc mi bu ko amee suñ borom dana ko defal lu ëpp loolu suñ Abdou Hakim Fall mi bu ko amee dana ko defal lu ëpp loolu seexoo bal noonu keneen ak keneen ku nekk na ko xamee noonu ñu def ko suñu liggéey gën a góorgóorlu di communiquer bëggante di xàccandoo di doorandoo ñu bokk lépp di defandoo lépp xam nga li nga xamante ne si nag mooy tax Pastef bi maanaam gën a taxaw mooy dañuy fexe ba lépp loo xamante ne si tënk nañ ko ci gàmm mooy lu mel ni cérémonie bii ñuy waaj a def ñi dëkk ci dëkk bi muy sëñ Bàccu Diop sëñ euh, sëñ imam euh, nu mu tuddati sax Baye Modou Gueye Cheikh Mbacke mii di jawrin Assane mi nga xamante ne si moo jiite association bi ñoom ñëpp ñu koy waaj cérémonie bi yéen ñëpp ngeen koy waaj pare daal di ñëw toog ci cérémonie bi ñu xam ne ñii ñooy waa Touba Fall parce que lépp loo leen gis da ngeen am cër baas bii nii njëy ñu indi ñu fexe ba indi leen sëñ Gana Messere Maxtaar ngir mu ñëw waxtaanee baas bi waa dëkk bi xam ne tamit loolu ñoom lañ ko defal ñëpp waaj ko génn ñëw fekkee lépp xam nga ngeen si taxaw di soñu nit ñi sant yàlla daal lañ mën a def ma gàttal eh, di ñaan nit suñ borom yàlla nañu nangul gàmm gi barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam Seexul Xadim di sant sëñ Abdou Akim Fall